bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina maulana muhammadin al amin wa ala ali beytihi al kiram atayibin atahirin zawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun ci sen sen bi di al khadimiya ci jotaay bi nga xamne mom lañ baxo and ak yeen muy allahu wal qalam Don jotaay bo xamne dañ ko bind kat yi nga xamne ñoy bind ci yoonu murid. mo xam ci lang buñ mëna bindé muy arab wala français wala wolof wala sax yenen lang yu dun mom tay wara don doon juroom fukelu jotaay ak ñatt yu ci and ak mbokk mo xamne ku ñu xam la ci bind ak gassu di dr Alpha Yusuf gaye sëñ docteur xam naa kon dañ lay dalal di la jox kàddu gi su ko defee nga nuyoo defaale benn présentation boo am te ni da nga ci xamle lenn ci say jaar-jaar ci wàllum njàng ak téere yi nga xam ne jot nga ko sottal bismillahi rahmaani rahim euh, sëñ Mbacke ñu ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte doon ki ngeen dalal tey ci seen émission bu am solo bi mu doon lu ñu yàgg topp ci boroom xam-xam yi ngeen di dalal ñu leen ci sant bu baax te di di am mbégte di di fi teew waaw ñun nag ñu ngi euh, doon gëstukat ci ci ci xam-xam ci wàllu économie ci wàllu yit lépp lu laal ci ci diine lislaam ak yeneen diine yi loolu doon loo xam ni euh, tàmbali nañ ko bu yàgg euh, ci wàllu Afrique ak ay doomam li ñu indil mbooru àdduna ñu koy topp ba di am tawféex di ci daje ak doomi réew mi li ñu liggéeyal Afrique te Afrique xamaguñu ko loolu moo ñu yóbbu ñu liggéey téere bi ñu tuddee ko confluence ci tubaab te nekk di bind euh, wolof wi ñu tuddee ko ndaje may euh, ci wàllu bind it ñuy bind ci ci français euh, di bind tamit ci wolof bokk na ci téere yu ñuy waajal bi ci topp ci ci wolof lañu ko fas yéene bind Euh, sori nañ ci daanaka mu ngi ci ci ci éditeur bi waaw ci wàllu bindit bind nañ yu bëri yu jëm ci ci économie ci wàllu innovation euh, bind nañ tamit euh, yu yu bëri yu jëm ci wàllu Afrique ak li koy doxal waaw ci wàllu jàng jaar nañ ci université def DEA di fa def tamit thèse de doctorat Euh, ci walu professionnel it euh, am nañ jaar-jaar euh, jàng ba matal ba doon expert comptable bokk ci ordre national des experts comptables du Sénégal di yor cabinet di ko doxal ci walu finance ak économie ak formation waaw loolu mooy mooy présentation bi. jërëjëf sëñ docteur. parcours bi amna na solo lol ndax deug yalla day wone na doomu rew mi ga bi nga waré dal jaar nga fi nga wara jaar ci walum jang ba yalla borom subhanahu wa taala dogal tay ji nga bok ci borom xam-xam yu mag yi nga xamne ne nañ ab téré bayyi fi wala sax ay téré yu bari bari lo rek di wane solos jang ak ñariñ li nga xamne ne ci nek so jangé ba paré nga jema a jariñaat mbindeef ci li nga jotta jang tere bi nak nek suñu kanam mom lañ séné jangat tay euh buñ dé jàngatub téere ci ben titre téere bi xamna ci lañ njëkk taxaw suñu alpha ndax it ak titre dafa doon lo xamanteni lo am solo la ci tere ndax parfois man nga gis ko xamné euh li tax muy jëkante di jënd moy titre bi amana mom moko attirer lan motax nga tuddé ko tru wi nga ko tuddé ak it ci lan la jëm jërëjëf jef, Mbacké téré bi ñu ko waxé ci tubaab mi ngi tuddu confluence confluence boko don euh, tek ci wolof nga naan ap ndaje ap ndaje bo xamni nak nag euh, la ko ñëkkalal ci ni ñu ko xamé ci walu jang moy ñaari ndox yu daje yo xamni ni benn bi di ndox mu neex beneen bi di ndox mu bu bu bu bu bu du ñu ne bu neexul waaye ndox bu bu am xorom euh, loolu moom daanaka dafa ñëw ci wàllu ci histoire ñëw ci géographie ñëw ci ci alxuraanul karim ndax alxuraan daf koy daf koy tudd lu bari daf koy tudd ci suratu faatiri tudd ko ci suratu furxaan tudd ko ci suratu namli tudd ko ci suratu rahman tudd ko ci suratu kahfi soo demee ci suratu fatiri wala suratu furxaan wala wala rahman daf lay indil ñaari ndox yi nañuy daje wama yastawi al bahraani hasbun furatun shaybun sharabu wa haza minhu ujjaajun ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مؤهرا لتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون dalay indil sunu borom ni mu dajalee ñaari ndox yi benn bi doon lu neex benn bi doon lu naqaree naan waaye bu ci nekk am na lu mu ci dëxiñ loo xam ni danga nga ci fekk xéwal ñu doon ndox yoo xam ne boo koy seet amaana warul woon na mën a ànd waaye sunu borom boole leen boo demee ci sóoratu rahman kazalika it rabbul mashriqayni wa rabbul mahribayni fa bi ay alaahi rabbikuma tukaziba maxrajal bahrayni yaltahiyaan baynahuma barzaxun laa yabhiyaan fa bi ay alaahi rabbikuma tukaziba yuxruju minhuma luulu wal marjaan fa bi ay alaahi rabbikuma tukazibaan sóoratu rahman muy wax sunu borom ni mu indee ñaari ndox yoo xam ni lu mu doxal seen diggante loo xam ni moo tax benn bi du dal ci moroom ma waaye danga ciy fekk lu lu ak marjaan mooy ay yu gànjaru yoo xam ni mënees na cee jële njëriñ soo demee it ci suratul kahfi daf koy indi waaye indee ko neneen foofu dafa naan wa isqaala Muusaa li fataax laa abrahu xatta abluha majmahal bahrayni aw amdiya uhuba foofu muy indi nag diggante yéen ci yàlla Moussa ak taalibeem ba di yusuwa nga xam ni ñu ngi ko tuddee Fatah nga xam ni ci tubaab mooy Josué nga xam ni ci gëstu dem nañ ba xam ni Josué moomu moom lañ tuddee Isa ibn Mariam mooy turandoom foofu sunu borom di indi ñoom nan lañuy jaayante di ànd di jëm ca loo xam ni fileek yegguñu ca duñu taxaw te mooy fa ñaari ndox ya di daje te kooku mooy Seydina Xudar mi nga xam ni moo jàngal yonent yàlla Muusa yenn xam-xam yoo xam ni tër bi moo koy maye loolu it day dellu ci baatu confluence

bu dee ca misra la nga xam ni mooy xayta misra misra li ko indi dëgg-dëgg mooy mi ngi tàmbalee fi ñaari ndox yi di dajee di Nil bleu ak Nil blanc balaay loolu euh, civilisation mésopotamienne nga xam ni moo ko jiitu moom it la ko indi dëgg-dëgg mooy ñi ngi ko lal ci fa Tigre ak Euphrate daje nga xam ni mooy ci wàllu tey Irak wala ci ci wetu Afghanistan mooy ndaje moomu moo indi civilisation donc day mel ni ñaari ndaje yooyu day am lu muy junj day am lu muy may te bu ñu demee ci biir amaana danañ ko danañ ci wax mooy Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ni moo séq téere bi ba ko Cheikh Ahmadou Bamba di yebal ndar daf ko yebal ci maam Askamara te maam Askamara tegtalam ba mu amoon ca ndar mooy na dem ba fan ñaari ndox yi di daje mu sanc fa tawféex bi ñu am nag mooy loolee ñu tudd ci alxuraan jisaat ko ci liggéeyub Cheikh Anta loolu lañ gisaat ndar mooy bël ba ñu jisaat ko fii ci ndakaaru mooy ñaari ndox yi fa ñu daje ñaar ñi nag ñu jël mu mel ni ku ci nekk dafa am lan ngay la nga la nga doon ñu boole leen mooy tey boo ko doon seet ñoom mën nga jàpp ni dara boolewu leen ndax kii dafa nekk ci ci xam-xamu science ni ñu ko xamee ci ci ci ci xamtu di Cheikh ante Diop Cheikh Ibrahima Fall nekk ci wàllu diine liggéey bi nag mooy wane ni ndekete la leen boole dogalu sunu borom la ngir africain yi ngir sénégalais yi jëriñu ci te xam ni sunu borom deselu leen dara ci walu xam-xam ci walu xewal te ñom ñi ñu doon te ku ci nek ñu jangat lan moy sa diggante ak Cheikh Ahmadou Bamba ak euh, Cheikh Ahmadou Bamba lamu indi lum doon ngir nit ku ñool jërëjëf señ docteur Alpha ma sha allah day melne titre téré bi leer na naññi confluence mu doon ndaje mi gandiko ci ayat yo ci bare bare rod na ci alquranul karim ci diggante saaru faatiri ak kahf ak rahman muy ñaari géej yi nga xam ne suñ borom subhaanahu wa taala wala ñaari ndox yi nga xam ne yàlla moo leen dajale te bokkuñu ndox mi neex lool ñu mën koo ndox ma ne ndox ma xamante ni jëfandikoo ko du yomb lool muy maawun furaat ak maawun ujaaj ñu ngi la ci sant bu baax ci ni nga xamee noonu bu ko andee waaye nga indi ci ñaari ci réew mi di réewum Sénégal seen tur yaakaar naa kenn du ko nattable muy Cheikh Anta Diop doon boroom xam-xam bu mag boo xam ne ku ñu xam ci wàll bind ak taalif ak Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne mooy murit bu mag bi nga xam ne moo àndoon ak sëñ Touba doon ku ñu xam ci wàll liggéey xam naa jombul bu ñu demee ba ci biir téere bi dana gën a leer dëgg-dëgg. beneen laaj bi ñuy laaj mooy téere ku koy bind dana am ay modification yoo xam te ni moo la motivé ba nga bind ko ndax maneef naa xam loolu dëgg-dëgg. sëñ Mbacke ni ma la ko waxee sànq nii ci suñuy gëstu dañuy dañoo jublu wane Afrique lim doon ak euh, sunu borom lan la ko jagleel ndax boo seenoo ni àdduna di doxee ñu bokk ci réew yi gën a ndóol ci réew yi bokk ci ci ci daanaka euh, pàcc boo xam ne ci àdduna si moom lañu ñu gën a xeeb day mel ni boo juddoo ba jàng. amaana loolu sa xel mën naa xalaat ni lii euh, lu tax mu demee nii ca loolu nag ci lañu ñu tàmbali woon di gëstu gëstu yooyu ba gëstu yooyu indi ñu ñu xool lan la Afrique am euh, sous-titre téere bi daanaka moom la ñu wax spiritualité et science waaye lañ ci teg mooy lumière ni d'Orient ni d'Occident lumière ni d'Orient ni d'Occident mooy ana lay lay leeral jamono te jógewul ci tubaab jógewul ci naar loolu ñu dëppale ko it ci ci suratul nuur euh, alaaw nuur samawaati euh, wala addi masalu nuur kamishkaat boobu euh, fa muy mujjee la charxia wala xarbiya mooy leer bi nga xam ni jógewul penku jógewul soow loolu nag yàgg bi ñu yàgg jàpp ni sunu borom am na lu mu ñu defal ñun ñun ñuule yi ak africain yi moo ñu yóbbu ba ñu ba ñu tànn ñaari jëmm yi ba ñu ci tàmbalee nag daanaka gis nañ ci lu kawe suñu njot ndax mënuñu woon jàpp ni bu dee Cheikh Ibra nii ni xam-xamam ci ñun li ñuy ñuy lu ñuy xam ci wàllu koom-koom wala ci wàllu lay doxal réew wala luy doxal jamono mënuñu woon jàpp ni moom toll na foofu ci wàllu xarañ ci wàllu diine it mënuñu woon jàpp ni Cheikh Anta Diop la ñu ko xamee ci wàllu science ci wàllu xamtu ci wàllu xeltu philosophie mënuñu woon jàpp ni indil na yoonu lislaam ak yoonu murit xeetu xam-xam yoo xam ni ba tey sax jullit ñi xamaguñu ko dëgg-dëgg wala sax murit yi xamaguñ dëgg-dëgg Cheikh Anta li mu li mu wane ci yoonu murit li tax muy dem banaan yoonu murit Afrique gépp ko war a xam ndax limu limu limu indil li leen indil kon loolu moo ñu yëkkati woon ngir ñu wane Afrique lan la indil àdduna si te loolu dem nañ ba xam ni mënoo koo gëstu te doo dal ci ñaari jëmm yi loolu moo moo moo sabab ñu euh, jël confluence xam ni ñoom ñaar ñooy ñu mënta ñàkk ngir Afrique jotaat boppam. jërëjëf muy tontu bu am solo wane na Afrique am na lu ko yàlla jox loo xam ne ba léegi mel na ne xamaguñ ko dëgg-dëgg te loolu nag doon loo xam ne wareef na ko war a mën a jàngat jaare ko ci ñaari jëmm yu màgg yi nga xam ne moom nga indi seeni jaar-jaar ak seeni taxawaay ci biir téere bi nga ne lumière lay doon boo xam ne dañ koy jële ci suñu bopp waaye duñ ko jëlee ci réewi occidentaux yi wala ñu koy jëlee ci réewi naar yi doon lu am solo lu mat a bàyyi xel euh, troisième question bi sëñ Alpha euh, téere ku koy bind léeg-léeg dañ ko séddale ci ay chapitre ndax ma def naa xam téere bi dëgg-dëgg ci ñaata chapitre nga ko séddale ak yan ak yan la. waa jërëjëf sëñ Mbacke téere bi ñu ko ñu ngi ko bind ci ñaari ñaari tom mooy tom 1 ak tom 2 lu tax ñu bind ko ci ñaari tom mooy dañuy wane ni ku ci nekk sa liggéey doy na sëkk ngir ñu gëstu la. ndax ba tey li ñu waxoon ni ñaari ndox yi don doon lu wex bi doon ndox mu neex ku ci nekk yaa ngi dox sa yoon waaye nag mënees na leen dendale mooy ci tomb bi Cheikh Ibra Fall fan la bàyyikoo fan la juddoo ñan ñoo ay mbokkam ñu def ko ci ci ci huit chapitre juróom ñetti chapitre yoo xam ni day feeñal daanaka moom la mu bokk ak waa senegal la mu bokkal bokk ak buur Trarza yi la mu bokk ak ña yoroon nguuru Kajoor ñu ñu indi ko ba mu leer ca boo jógee ci bu la neexee yam ci dëcce fu njóogu ak Amari Ngoone Sobel nu mu sottee ko damel de celaw damel mandesit na mu wàccee ba ñëw ci moom Cheikh Ibrahima Fall loolu yëpp ñu nettali ko la ca xew yëpp ak it Cheikh Anta ci boppam la mu wax ca loola ndax dañuy faral saasu ne di indi croisement mooy bu dee Cheikh Anta liggéeyam ñu wane Cheikh lan la ci doon lan la ci wane bu dee Cheikh Ibra liggéeyam ñu wane Cheikh Anta lan la ci wax ak lan la ci lan la ci doon ca loola ci soqeeku boobu ci lañuy ñuy indi euh, fi nga xam ni ràññee nañ leen lool ci wàllu xam-xam ak ci mbaax di waa njare ñu nettali ko Euh, waxit jaar-jaar yi ndax liggéey bi dañ ci boole li tubaab di wax partie terrain mooy fépp fi nga xam ni Cheikh Ibra euh, jaar na fa liggéey na fa lu ci ëpp dem nañ fa moo xam Ndar la moo xam Ndand la moo xam Louga la moo xam cees ba ci dakaar daanaka yooyu yëpp Cheikh Anta it euh, kasaalika noonu ci fu mu juddoo ba fa mu fa mu fa mu mujjee wàcc yooyu yëpp daanaka ñu ñu jaar fa kon ci euh, tome bu njëkk bi ci huit chapitres yi indi nañ juddoom sànq ñu ngi doon wax njare bay wax ni Cheikh ci boppam bind na ci njare euh, ci benn téeréem bu tudd l'Afrique noire précoloniale di wax ni njare mu dëppale ko ak dëkk yu amoon Mali ne mooy dëkk yoo xam ne suñu borom dafa defoon sañ-sañam ba daanaka ku ñu ku ñu tooñ boo fa duggee kenn du la mën a laal wala ku ku ku ami bàkkaar boo fa duggee suñu borom jéggal la ne loolu looloo amoon njariñ ni mu amee woon jaba ci yenn uh, ak kunjura nga xam ni mooy ay dëkk yu sel yu nekkoon ca Mali ba ba ñuy ba ba suñ borom di fa def dëgg-dëgg la doon doxal lislaam loolu nee na moo sotti ko ba gis nañ ko fii ci njare donc yooyu yëpp ñu ñu wax ci njare ni njari soqe ko ak ay maami Cheikh Ibrahima Fall ak diine nañ ci taxawee ak Cheikh Ibrahima ni mu def ba loolee mu jël ko delloo ko ci yoonu murit ngir mu doon lay taaral la Afrique moomal boppam ca lolit it ñu wax liggéeyam ci lan la la tënku diggante diggante mag Cheikh Ahmadou Bamba nan la xameek sëriñ sëriñ bi euh, balaa mu koy xam lan la ko jaral ndax euh, baax na ñuy xam ni euh, Cheikh Fall dafa doon ku ku jàng ba jeexal téere yi waaye jàng boobu moo may sax mu xam ni li ko dese li li ëpp solo mu yegg ci waaw mooy li li li sëñ Mountakha di wax naan bu amoon sañ-sañ dañuy jàng ba ba noppi ba jeexal téere yi doonu jublu ci xam xam lan la sëñ Tuubaa indi loolu mooy mooy tome 1 bi ñu ñu leeral ko nettali ko wax ay jàng jàngam ay ay jàngaleem waxit liggéeyam te su ñu nee liggéeyam daf ñuy ñun amal solo lool ndax la ñuy def ci wàllu koom-koom ndekete Cheikh Ibra royukaay la ci. dañuy wax naan ci université yi gën a mag yi business school yi ñu gën a xam suñu xamoon euh, Cheikh Ibrahima Fall liggéeyam danañ ko fa jàngale ci wàllu woowu rek waxuma sax ci wàllu diine waaye ci wàllu lay doxal àdduna ci tom 2 bi ñu ñu wéyal ko foofee gën fa indi nag Cheikh Anta indi jaar-jaaram indi fi mu juddoo fi mu màggee ñi ko yar wax ni ko Cheikh Ahmadou Bamba ci boppam dalalee baa ci alquran ni mu jaar ba teel a mokkal alquran ci ñaari at nañu ko yaree ci diggante kër gu mag ak kër cheikh na ko Cheikh Ibrahima Fall euh, jàppale woon euh, daana daan toppatoo njàngam lan mooy digganteem ak euh, Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yooyu yëpp ñu leeral ko ba ndax leeral boobu dafa doon laaj boo xam ne américain ci boppam ba jubloo liggéeyub Cheikh Anta dañ koo laaj dañoo laaj ni kii fitam wii ak xam-xamam wii fan la ko jëlee loolu it ñu indi ci tontu. wane lan mooy jaar-jaaram ay maamam ñan lañ maxtar Numbe Manumbe nga xam ni mooy maamam di magi maxtar Numbe seen maam bu maamam bu jigéen Saasum Koddu Faal doonoon doomi Dammel Latsa Latsukaabe Faal loolu di wàcc di wàcc ba ci moom mu dajale loolu euh, dem fii ci Touba ci sëñ Mbàkke Buso nga xam ni moom ci boppam Cheikh Anta bind na ni foofu la njëkkee amee li tubaab di wax c'est fulgurance scientifique mooy li ko may mu am bëgg-bëgg ci mathématique ci wàllu science nee na mi ngi ko mi ngi ko amee ci ci sëñ Mbàkke Bousso dundam ak jaar-jaaram ca loole balaa muy dem tugal France ak lam fa liggéey lam fa jàng baccalauréat yi mu yi mu jot dajale doon koo xam ni sas boppam ci coono ci nangoo wéet ci nangoo jàng ndax nett lañ ci téere yi moom diggante ak turandoom maam Cheikh Anta Mbacke mi nga xam ni moo ko moo moo moo moo do jëloon soxna Fat Diop mi nga xam ni mooy rakki waajuram soxna Maguette Diop soxna soxna Fat Diop nga xam ni mooy waajur sëñ Moustapha nga xam ni moom daanaka euh, Cheikh Anta ci jaar-jaaram indi nañ euh, njàngam euh, ni mu yéexee dugg ndax ni ni ko doomi daara yi di defee dem ba ci biir maam Cheikh Anta ni ko dama bëggoon nga génn l'école bi dem defi daaray mécanicien mu génn l'école bi dem ci daaray mécanicien waaye def fa ab diir ñëwaat ci turandoom ni ko man daal bu doon sama sago nga may ma ma yeggali ñàng bi ndax lu ma ñor la ca loolu it moo ko dooleel ca foofu mu yaroo ba la nga xam ni moo gën a rëy ci liggéeyam li ko may mooy làkk wolof te làkk wolof boobu mi ngi ko jëlee ci diggante Mbàkke Bawol ak Mbàkke Kajoor damay wax naan Euh, Cheikh Anta Diop bu yaroo woon Fann Résidence wala Amitié wala Mermoz daanaka du ñu am borom xam-xamu tool nii ca boobu nag tome 2 boobu ca la ñu yeggale wane moom dëgg-dëgg la ko booleeg Cheikh Ibrahima Fall ak la tax boole leen di di dogalu suñu borom. waaw daanaka suñu borom lu ñu waajaloon la waajaloon loon la ñun africains yi ñu xam ne ñii ndekete lu muy mel ni seeni jëf dafa soriyo dafa sorianto waaye ndekete la leen boole moo ëpp doole fuuf. la leen wuutale loolu nag bokk ci kéemaanu sunu borom yeey tax mu boole ñu ndox mu ne ak ndax mu naqari boole leen te eh, ñu foog ni bokkuñu dara waaye mu doon eh, lu lu mën a dajaloo. jërëjëf eh, sëñ docteur macha allah tontu bi am na solo lool muy téere la boo xam ne da nga ko séddale ci ñaari toom muy tom 1 ak 2 bu dee tom en bi. nga ni ci luy tolloog 8 chapitre yo xamne ne dang ko nga ci dundub mam Cheikh Ibrahima Fall wane fim jossano ay wajuram wane am jangam wane taxawayam ci yoonu murit ak yu am solo yi nga xamne jot nako liggéey ma def naa ne rek première tome bi wala tome 1 bi ko xamne ne ngoko li ëpp ci dund maam Cheikh Ibrahima Fall da nga ko xam kon mboorum maam Cheikh Ibrahima Fall moom ku am tom 1 bi da ko jariñoo bu baax a baax tom 2 bi nga gën koo joyal ci histoire Cheikh Anta Diop moom it wax ay cosaanam am njàngam digganteem ak Cheikh Ibrahima Fall digganteem ak turandoom maam Cheikh Anta muy téere bu yaatu lool te am solo xam naa dañuy ñëw ci beneen tomb bi muy téere bi nga xam ne moo nekk suñu kanam te nga bind ko moom it ndax mëneef naa xam ñan ñoo ko édité ñan ñoo ko mool ak kañ lañ ko mool ndax it mi ngi jàpp ni ci bibliothèque gi ba tey jamono ji ñu toll. waaw jërëjëf euh, sëñ Mbacke ni nga ko waxee rek ci euh, ñaari tom yi kon mu ñaareel bi di fukki chapitre ak ñaar ñu ngi ko mooloo ci édition Omayal. doon doon maison d'édition boo xam ni ay sénégalais ñoo ko ñoo ko moom ñoo ko taxawal ngir lépp luy jëmale Afrique ñu gën koo xam gën a taxaw ci la ñuy jëmale kanam ñu ci liggéey di ci ci wàllu bind ak ci wàllu documentation pour euh, ñu ñu ñu mën ko ñu mën ñu mën cee jot kon loolu mooy maison d'édition bi nga xam ni moo ko moo ko mool euh, daanaka téere bi am na ci ci librairie yi ci Dakar am na tamit Touba ci ay représentants yoo xam ni euh, ku ko ku ko soxla mën nga ko mën nga ko amee ci ñuy faral di di joxe téere yi euh, lu mel ni Drus yor nañ ko drus point org ak euh, sëñ Madialis Akabe Madialis ñoom it waaw ñoom yor nañu yor nañu téere bi ak yeneen ñi nga xam ni ñu ngi ñu ngi joxe téere yi euh, loolu daanaka euh, foofe fexe nañ mu tas ndax jublu bi mooy ñu xam dëgg-dëgg ñun ki ñu doon ndax man arafa nafsu faxat arafa rabbahu arafa nafsu boobu mooy xam sa réew xam ñi bàyyeekoo sa réew la ñu def ak lañu doon looloo lay dimbali nga xam yow yaay kan moo tax ñu euh, fexe euh, di ko tasaare ndax mi ngi génn ci ci deux mille vingt et bi fin deux mille vingt et euh, ñu ngi ci promotion bi te it ñu ngi liggéey version anglaise bi ak version wolof bi waaw ñu ngi ci liggéey ngir mu gën a tas ndax dem nañ ci dëkk yu bari lu ci mel ni États-Unis def présentation téere bi euh, def euh, ci rajo yi également foofu euh, ngir ñu gën a xam ñoom li ñu am ndax Amérique dañoo xam bu baax te fonk lool Cheikh Anta Diop waaye xamuñu Cheikh Ibrahima Fall xamuñu Cheikh Ahmadou Bamba te téere bi boo ko jàngatee ba ba jeexal ko di nga xam ni Cheikh Anta boo ko xamee faw nga xam ñeneen ñeneen ñi ma tudd léegi faw nga xam leen te boo leen xamee gën xam ni sunu borom am na lu mu defal nit ku ñuul lam ko defaloon démb ca misra loolu yi defalaat na ko lu ni toll wala lu raw waaye nag faw nga xam ni mu ko defee kon loolu mooy mooy li ñu li ci téere bi ndax dañuy dañuy dañuy dañuy gis euh, Sëñ Tuubaa euh, dafa dafa feelu euh, alxuraan ci lii mu wax ni wala xat yassarna alquran li zikri fa almin mudakkir alquran dafa wax ni téere bi suñu borom daf ñu ko wàcceel ngir ñuy xalaat ngir ñu xam suñ Tuba ci ci Masalik wax ci wàllu xam-xam wax ci wàllu taxawaayu nit ku ñuul ni nit ku ñuul doone ko xam ni mën naa indi euh, xam-xam bu bu am solo waaye du tee ñu xam ni dëgg dëgg dëgg lii nga xam ni moo koy jëriñ mooy muy xalaat di xeltu di xalaat di xeltu ndax wa afdalu zikri kitaabullaahi waaye sëñ tubaa def ci teg maxat tadabburi moo di bàyyi mu wax ko ci masa Masaalikul Jinaan nga xam ni mooy suñu suñu suñu suñu suñu ndono lu mag loolu Cheikh Ahmadou Bamba bàyyil bàyyil africain yëpp laay wax ci wàllu tadabur boobu nga boole ko ak taawil nga boole ko ak tafsir ñoom ñaar ñii dañ cee liggéey liggéey yu ama ama solo moo xam Cheikh Ibrahima Fall moo xam Cheikh Anta ci boppam moo tax ñu def ko ci euh, téere yi ngir wane ni ca loola sax jullit bi war naa war na leen a dégg ngir diineem gën a ñoŋ ngir mu gën a xam diineem lan moo ci nekk ci biir dëgg-dëgg. jërëjëf sëriñ Youssoufa euh, téere bi mel na ne. ñi edite édité mooy mayal nekk ci réew mi nga xam ne mooy réewum Sénégal wax nga tamit ci yenn bibliothèque yi nga akabe ne ku fa dem ko fa fekk ku ci AKB Jili Ba Majalis ak ñu mel ne ñoom muy bu am solo boo xam ne euh, maneef naa dëgg rek solo si day gën a wat Afrique ak ndonalu riche li nga xam ne la ko suñ borom defal mu am ay góor yàlla yu mag ne liggéeyal nañ seen seen réew te jamono waru leen a fàtte war nañ leen a présenté ci àdduna bépp bañ xam ñooñu ñooy ñan xam naa laataa ñu ñëw ci tomb yu mujj yi ku mel ni Cheikh Ibrahima Fall ak seex Anta ci yoonu murit lan lañ mën a jariñ yoon wi dëgg-dëgg ci nan nga koy jàngatee daal ñoom ñaar waaw jërëjëf sëñ Mbàkke mu doon laaj bu am solo bu ñu tàmbalee ci Cheikh Ibrahima Fall daanaka ñoo xamandoo ñun ñëpp ni moom la ñu tuddee baabul muridina eh, ni ñu ko ko tuddee nag moom moo ko jëf moo ko jëf ndax eh, damay wax ci téere bi ni eh, di fàttali waxi wolof biñ naan yéene néeg la borom a cay fanaan mooy Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba ni mu def yonent bi ba nekk xaadim bi bi gën a Mum non la ko sunu borom fayé mu am ko xamni ni la koy liggéeyee liggéeyalee di di Cheikh Ibrahima Fall nonu nak mu ko liggéeyalee daf ñu may ay buntu yu bari ay wuntu yu bari ngir ñu ñu ñu dégg alcorane ci ay patch yu bari bari bari ci walu jaayante ci walu liggéey ci walu joxe sa bakkan yoy ci walu jihad euh, jihadul akbar yoy yep yep yep diine indi ko waaye xamuñu woon ni loolu dees ko ci boole ba moom mënu see ñàkk Cheikh Ibrahima Fall loolu doon taxawaayam woo xam ni murit yi ak jullit ñi dañ koo war a xam beneen wàllu wi mooy ci wàllu xam-xam xam-xamu bu ma neexee ne philosophie mooy ci wàllu pensée loolu Cheikh Ibra doon na ci kàngam boo xam ni tubaab yi dañ ko doon wër di ko seet si ngir di waxtaan ak moom ndax dañ doon wax ni xam-xamam dafa daf leen sut ndax ci ci fiche de renseignement bi gën a siiw boo xam ni bind nañ ko ci ay mbiram ba ñu demee ci wàllu intelligence am dañu ne remarquablement intelligent mooy koo xam ni xam-xamam ak xelam dafa dafa dafa kawe dafa kawe jamono te loolu nag teewul yàqulu ko dara ci diine nim ci toll ak lim ci jëf ndax damay faral di wax ni euh, sëñ Moussa dafa leeral li tax Cheikh Ibra Fall doon royukaay li mu indi yoonu murit ci ci clairvoyance mooy am gis-gis bu bu rafet am gis bi tax yow boo jógee di jullit nga mën a jëriñu ci ci alxuraan nga mën a jëriñu ci ci yoonu lislaam ndax dafa ni ci tàmbali bi rek mës nañ xibaar ak njëbbaloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe ma foofu li gën a li gën a rëy mooy lan la Cheikh Ibrahima Fall def ba yàlla wax ak moom waaw ne yàlla mi ko moom moo ko ni Bàmba moo la moom liggéey boobu nag mooy loolu daf ko daf ko wax jullit ñëpp mooy lan ngay def ba sunu boroom jegeel la boppam ba di la ba di dee deeyanteeg yow ba di la wax ay mbiram loolu dafa doon jàngat boo xam ne dafa indiwaat ambition ci diine mooy diine bu la jëree jëlee fi muy tàmbalee ci yow ak li mu jublu ci yow mooy nga doon ku ku ku modèle mooy nga doon ku ñu naw nga doon kuy jaamu yàlla waaye boo jógee ci jaamu yàlla boobu mun na laa may nga nga yegg ci liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla nag moo lay may nga yegg ci yàlla loolu Cheikh Ibrahima Fall loolu la la wane wax ni li ñu dénk sëñ Tuubaa ngir mu def ko ci yoonu murit mooy tabax yoon woo xam ni dañ koy lal ci himma te mu yoon woo xam ni day jëmale ña ciy nekk ci seen borom Cheikh Ibrahima ñëw wane ni moom mooy prototype bi te loolu yàqulu ko dara ci àddunaam ca lam ca war a lijjanti lam ca war a am ndax koo xam ni doon nga taalibe bi gën a mag te teewu teewulaa doon milliardaire bi gën a mag ci jamono teewu laa doon ki nga xam ni yaa moomoon pale présidentiel ba sëñ Touba di jóge ci géej gi en 1902 kon kooku mënees na ko wane ci képp kuy kuy nekk ci diine ndax am na ngërëmal yàlla mënees na ko wane ci képp ku judd rek war a am lu baax loolu la indil yoonu murit te wane it ni muy dëppoo ak jamono loolu it lu lu lu yéeme la loo xam ni moom moom moom boo ko toppee da koy gis ku mel ni Cheikh Anta Diop li mu indi. te murit yi war ko xam mooy njëkk li mu bind ci yoonu murit waaw dafa bind ci Cheikh Ibrahima Fall ci civilisation ou barbarie wax ni Cheikh Ibra mooy daanaka révolution sociale bi l'islam indi nga xam ni euh, sëñ Touba ak ñi fi jaaroon euh, El Hadj Umar euh, El Hadj ñoom ñëpp nañu indi daanaka Cheikh Ibra mooy prototype bi wane ni révolution boobu na mu waroon a réussir mooy wane ni euh, daanaka daf fi ñëw pour indi dindi fi rëy dindi fi nguur yi la ñu indi woon di di di noot wala di xeebaate loolu Cheikh Ibra mooy exemple bi wane loolu jóg na fi mu ngi ko bindi ci civilisation ou barbarie Cheikh Anta Diop wax na ci xasida yi wax na ci xasida yi na mu doonee dënn góor yàlla yoo xam ni daanaka booy xool euh, nit ku ñuul li mu am loolu boo ko xoolee danga koy gis ci màndarga yi euh, Cheikh Anta Diop indi na ni sëñ Moussa Ka doone monument ci wàllu way ci wàllu lay lay tax suñu suñu xayta ñu téye ko xam fam jógee Cheikh Anta bind na ci ci Touba Touba na mu nañu ko xamee woon Misra na mu wala ngaa ba yegg si fii ci li mu tuddee moom la mythologie musulmane sénégalaise mooy mbiru Touba na mu demee bind na ci la continuité historique na nga koy fekkee ci mbindum Euh, sëñ Touba fekke ko ci mbindum Alaaji mali fekk ko ci mbindum Majaaxate Xala nga xam ni ñooñu ngay jàpp ba xam ni la Afrique la mu rawee woon loolu mooy rogalaat di rogalaat jaar ci empire du Ghana jaar ci empire du Mali ba looloo wàcc ci ñoom seen seen intellectualité ni ñu ko wanee ci wàllu mbind ak ak jàng ak jàngale wane na it woo Afrique ni leen yoonu murit faw ngeen jàpp ko ndax mooy mennum yoon woo xam ne dafa wane ni nekk ci lislaam taxuta doon arab mun nga doon lislaam ba noppi doon nit ku ñuul loolu di di di ay ay jukki yu ma jël yoo xam ni euh, wax ci Cheikh Gaynde ma ni mu doonee nee na ci wàllu philosophie ki gën a ki gën a xarañ ci moom ñi mu xam moom moom Cheikh Anta mu wax ko wax également ci sëñ Bassirou Mbacké ne sëñ Bassirou Mbacké mooy physicien bi gën a mag bi mu xam wax ni ñoom nañu nekkee woon ci xam-xam nga xam ne dañuy teg xam-xamu diine ba noppi teg si xam-xam biy doxal àdduna wane tamit ni mu jokkoo woon ku mel ni Cheikh Ibrahima ñas wala Cheikh Ibrahima Diop nga xam ni moo doon grand serigne de Dakar ànd ak ñoom ngir def projet écologique bi gën a mag ngir freiner avancée du désert wane moom collaboration ak ñooñu fan la toll woon ba tubaab bi naw ko ci donc loolu lépp di doon ay dimension yoo xam ni bokkul dara ak dimension yi nga xam ni moom lañu ko xamee ci wàllu égyptologie ci wàllu entropologie mooy nit ñi mu soxee ko ci Afrique ak la ko waral ak Afrique australe Afrique centrale la mu doon ci ci ci ci mboorum àdduna loolee lépp di di ñëwaat rek ba ñu xam ni ñii li ñu def ak li ñu doon africain yëpp lañ ko defal waaye nag balaa ñu ci jëriñu faw ñu xam loolu lan la loolu mooy téere bi li ko li ko li ko indi jërëjëf sering Alpha ci tontu bu am solo bobu dañ ci déggee ne rek ñaar lañ ño xamné ne yoonu murit ndakate mënu won leen wona ñak ñàkk waaye Afrique it soxla na leen lool ngir seeni taxaway bu dé mam cheikh ibrahim Fall lu béré lo xamné ne da koy wax té ñu bëri xaw ko umpale melni na mom moko firi mel jaayante jël sa alal joxé ko ci yoonu wané wat dëgg-dëgg nan la ab taalibe war a àndee akub sëriñam seanta moom it da ngay gis ay taxawaayam ci xam-xam ci wàll civilisation gis nga lim ci indi lu bëree bari wàllum culture ci réewi Afrique yi gis nga taxawaay yim ci am ak it lenn ci njabootuk sëriñ bi ak ñaandoon ak sëriñ bi seede yu rafet yooyu nga xam ne moom la def ci ñoom xam naa kon sëñ Alpha day mel ne li ñu dese ci waxtu bareetut xëy na émission bi moom buñ ci doyal sax ngir téere bi yaatu gi nga xam ne moom la yaatu ak am solo gi nga xam ne moom la am solo waaye nag comme que dañ koy gaaral duñ mën a jukki li ci nekk lépp dañuy tënk rek li ëpp solo ci téere bi ngir nit ñi mën a xam téere bi lan la wundu bañ mën a daw dëgmal jëm ci wut ko ngir mën koo dawal xam li nekk ci biiram euh, yan laaya biir ngay jëmee ci ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàll euh, li nga xam ne mooy mboor ndax mboor it doon na lu am solo muy histoire jamono yépp la massa am solo rawat na jamono ji ñu toll ndax ku ne ngi juk di bind ci mbor waaye amana ño xamne ne ñu bëree bëri ñom te nii dëggi-dëggi mboor xamuñu ko waaye niñ koy jëfandikoo mel na ne ump na leen lool kon ñoñu yan lay bir ngay jëme ci ñom señ Alpha. waaw jëf señ Mbacke di di bégaat lool ci dalal bi ngeen ñu dalal wa mbor nak euh, solom foko tak rek wessu nako ndax euh, li ñu waxon sank ci cheanta moom ba mu demee France la mu bëggoon a jàng dëgg-dëgg euh, moo jëmoon ci ci aéronautique waaye ba mu demee ba xam ni Afrique dañu dañu falsifier mbooram dañ ko dañ ko dëpp ci la jublu moom dem jàngi histoire dem dem jàngi bépp xam-xam yoo xam ni ñoo wetoo ci mboor mu jàng ko ngir mën a indi liggéey bii mu liggéey liggéey te doon kii mu doon loolu rek de moom rek firnde la ci ci mboor solo si mu am waaw laay biir bi nag xanaa sama bopp rek laa koy yemale ci gën a farlu ci ci source yu baax ci ay travaux de terrain ci indi lu wér ba may ñu ñu xam ñun ñooy kan ak lan la suñu borom def dëxuñ ci suñu biir ndax Cheikh Anta dem na ba bind nii moom wolof gi mu doon dafa dem ba lu ko jommal la ndax dem na ba fekk ci la gën a xóot ak la gën a ruqe ci mbooru àdduna kon suñ borom bu defee loolu ci sa mboor ci sag làkk te yow xamoo ko daanaka doo doo doo mën a dem fenn kon mboor mooy lii njëkk ci xam-xam bii tax réew mën a siggi dëgmal jëm fu sore Cheikh Ibrahima Falit dugg ci mboor woowu xam ko mooy waral nga jox ko gëddam boo ci duggul doo dangay jàpp ni euh, dafa toppoon sëñ bi bëgg ko lool waaye boo demee ba xam les enjeux historiques ci mbor ci ngay xam mom lan moy taxawayam ak la waral ñu ñu war ko xam deug deug ma ngi lay sant bu baax sëñ Mbacke. jërëjëf sëriñ Alpha muy labire yo am solo yo xamne ne kuy gessu ci mbor war nga koy bayyi xel muy fexé ba source yi ngay andi mu doon yu wer yo xamne ne ko jele ci ay kay yu deugar kecc waye doonit lo xamne nit ki ci yëngu muy samonté ak yu bari bari bari ndax doon lu am solo ci dunduk nit lu yëkkati am rew di jëmele kanam kon sëñ Alpha ñing lay sant bu baax ci yu am solo yi nga xam jot nga ko andi ci sa téré bu am solo bi ñu doon jangat di sant bu baax it suñu mbokk sëriñ Bamba Mbay mi nga xam mo ñu jokkale ak yow deug yalla momit japp na ci émission bu baax baax ndax émission bi mom niñ koy faral di waxee rek jeglee luñ ko ñiy bind arab rek dañoo bëgg mu doon lu yaatu bañ xam ne yoonu murit am na ay bindkat ci français ci arab ci wolof xëy na sax yeneen langue yi dañ ko amagut waaye bu ñu ko amee jël leen muy anglais ak yeneen làng yi ci des yëpp rek sant nañ la bu baax ci sa taxawaay ak leeral yu am solo yi di sant suñ mbàkki mbégare mii ñu àndal nga am ne daanaka émission bu jaaree yoon moo tax mu jaar yoon mooy ne ca ginnaaw te lu jag moo ko jagal di sant Serigne Mamour Touré mi nga xam ne mooy njiitu seen bi di Al Khadimiyyah di dig ñi nga xam ne ñoo ko baaxoo topp beneen jataay ak beneen téere ak keneen ci borom xam-xam yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa